asalaamaaleykum bisimilah dañuy sant yàlla julli ci Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suma papa bi jiitu yàlla yërëm ko xare ko aljana moo ñi fa fekk ñëpp comme nu ko père Bekay waxee di ñaanal aussi suñu père Balla Gaye xam ni làmb ñàkk te làmb yëpp ko bokkoon di ko ñaanal moom it fu mu jëm gëna ko fi mu jugee suñu waajuru des fi yàlla may leen gudd fan ak wér bàyyi leen suñu kanam ba suñu yéene ci ñoom yàlla mottali ko waaye di nuyu d' journaliste fi teew yëpp parce que Ber Mbakaay wax na ko te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla caméra yi moo fi gis yëpp de est ce que mos naa dugg ci plateau gis ko allah den wax na moon naa leen lool xam it na moon ngeen ma waaye yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu ni am di sant yàlla nag ba dem ba affaire yi di wax nag amul naagu Covid ñëw na fii xam yàlla di ñu dimbali ak suñuy médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj jeex waaye tant ñoo ngi dégg benn kaa bu ñu naagu dañuy jël mesure barrière yi toujours di wax tamit dafa am lu fa xew encore muy mbëkk mi waaye suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal yu bari des ci ñooñu ñoo leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana parce que ñoom ku ci ne ba ngay jógee teranga moo la taxoon jóg jàppale say waajur waaye tamit dafa am lu ci am parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngalee du xaru parce que ñi dem teranga moo leen tax a jóg comme ni ma ko waxee mais lu ñuy dem bay méngalee xaru rek lu jata lu jara xolaat la metti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents yi am na ci responsabilité muy nañu bàyyi xam jeune chaque jour yi nga xam ne dañuy ne ci kër xam nga amu njëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom ne la mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg puisque ku ne xam na ni dem ci gaal ay millions de loolu c'est risqué yooyu waajur yi am nañ ci responsabilité nañ ñu wàññi puisque képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg mais waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bëree bëri état bi tamit góor góorlu góor góorlu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am na ñu fi yor seen liggéey amuñu sax fu ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen di ñaaxaat état bi lu doon def ñu góor-góorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey puisque juddoo fii màggee fii tekkee fii am na te am na ñi xam ne ñooñu fii fii la ñu nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu mu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fi màggee fi tekkee fi am na waaye ku nekk fi yàlla dogalee sa sa sa sa sa tedd ñu bàyyi ko xel xam nga yenn risques yi c'est un metti na trop trop xam di di wax encore di wax waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk dogal na yi sambla ñoo ngi dem bitim réew tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu métti métti métti la ñuy daj foofu du boo tukkiwul rek sa dara du baax ñu jéem sam lax takkaat tubay yi xam nga lu ñu yor fii lu mu ndaw ndaw gis nga ñooñu ci góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay cinq cent di ci passé gaal loolu loo ci def liggéey ci fii mu nekk dara mu nekk dara ba tax na xam nañu dañu waat xel gën a góorgóor lu baax di ñaanal encore ñu jiitu yàlla yërëm leen xale leen àjjana xam nga seen waajur yi fi des yàlla taxawu leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wutal leen leneen waa loolu la ñuy wax. di féliciter d'abord président CNG bi lu ci nekk bégaay jaar na ci mais dañ koy dañ ci kiiwaat rek comme lii gëj am dañuy profiter occasion la ci ñun président CNG bu bees bi muy Bira Sène di ko ñaanal yéen bi yàlla na woyof. li ñëpp di séntu ci moom muy axlu làmb yàlla na woyof toll président Alioune Sarr tamit président Alioune Sarr it xam nga coonam lépp def na ko ci fen six ans yu fi nekk moom it di ko ñaar mu am leneen leneen lu mu gën père encore di ko jaale waa Guédiawaye yëpp di ko jaale ak lamb di ko jaale Balla Gaye numéro 2 xam nga demoon naa fa ak doomu Miss Ndour di ko jaale Sénégal yëpp waaw xam naa après ñu xaar incha allah question yi di nuyu d' abord xam nga waaye Safroc énergie ak suma xarit yi ma àndal ñëpp ak ñëpp ñuy seetaan pardon la monde dama defoon ne affaire yi moom jarul yàkkamti puisque lu ñu naan séddu asamaan jarul boo ko dee fas yéene am yeneen jotaay yi nga xam ni man ak moom lay doon te bu boobaa la baat ak tontu di gën a neex waaye yóbbu dëggal nga ubbu làmb taxaw fële wax ma koy tontu bariwul njëriñ pour man man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla di dimbali ba suñu déwi tey fukki personnes yoo taalal micro huit yi boo leen ne Modou Lo roi des arènes ñu ni mënul nekk yàlla di dimbali di dimbali ba yàlla defal ñu loolu ñu koy sante yàlla bu baax baax ama kooku waxu mbër la wax rek waaw waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn wax nag yow waaye dafa am la nga xam ni man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëreeg kii nu mu tuddati bombardier amu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma jër roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëri suñu biir chaque fois que ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa see moom deux fois loolu làmb rek day war ubbi teel a bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay borom lañ mën ak amaa Baldé ñëpp xam nga koo bëri ba pat loo xam ne làmb nawee la <laughs> kooku ay morom ñun waaw mag yow ma ko ma ko magee benn ñaar ci la yem xam nga ba tax na loolu man sama bëgg-bëgg la woon moo tax du ay sës sës dugaluma ci ay jël kii wala jël kii parce que aw lu ma yaaxam de yàlla la yaakaar teg lépp ci loxoom mais bëgg ubbi affaire yi affaire yi gën a yaatu loolu moo tax ma ne woon su ma yàlla dimbalee ba ma jël roi des arènes damay wàcc jël xale ah, waaw d' di la remercier ci loolu. di la remercier ci loolu te ba ngay wax léegi père ba ngay da ngaa juum man ko dee ma woo ko de wax xam na ku yàgg seetaan làmb la macha allah waaye di wax bëri na bu nekk ah ci làmb te chaque jour nga bëri bëri indi gauche mu di droite wala yooyu noonu am na li nga xam ne ñun duñ duñu gan ci làmb daal xam duñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku nekk ñam nañ ci ku nekk kon ay Ama yooyu yooyu gëw ma ni daal ay pied gauche ak dinañ ci jaaxal te mu ngi wax yàgg nañoo tëkku de déedéet man mosuma tëkku Ama Baldé moom moo yàgg di depuis combat bi amoon wuur mu ñëw di ma tëkku xam nga loolu yàgg na lool waaye nag doon na ko wut lu yàgg mu jaral ko lu nekk incha allah loolu mu doon def ba bis ba na fexe ba incha allah loolu mu doon def na ko dëggal loolu rek laay ñaan <laughs> loolu rek la ñuy ñaan. nee nañ day membre di ñëw de. ah waaye fas muy membre de laaw service lañ koy laawee. muy ñi ñiy bay wala wala ñi yor wala charretier yi war nañ ko xam fas muy membre laaw service lañ koy laawee du membre de day taxaw lu ñu boole fii weesu nañu ay jot xaalis ak jotul xaalis lamb bu taxaw moo tax ñu teew fii kon tey ay jot xaalis ak jotul xaalis defe naa bariwu ci importance lamb ji taxaw na. Mm-hmm. annonce bi tey mooy sama yëgle ci ñëpp parce comme boobu ba léegi ñu ngi wax taxaw naag taxawul ak lii am nag lii am na waaye sortie bi tey loolu moo waral ko de presse bi pour ñëw leeral askan bi ñëpp ñu doon am tuut leen wax làmb bi taxaw na taxaw nag jeexal na wax bu waxee dégg-dégg la laaj janvier bi nga xam ne li ci des maanaam du tax un mois mat xam nga te tey ku organiser bisam soxla nga promotion bu doy. utee sponsor sponsor yooyu noonu nga defal leen promotion ba gis ci seen bopp. tey loolu waxin la waxin bi mooy staff bi gis nañ seen mbër ci état bu leen neex moo tax waxin la rek ni pare nañ waaye du caageen ni <laughs> janvier wala yooyu parce que promoteur bi tëgg combat kay moom it soxla na ay sponsor def promotion ci combat non risque moom man gëw ma loolu te tubaab dafay wax sax qui risque rien n'aura ah? dani rek te am na fooy toll ci làmb koy bëreel maanaam may essence rek laa ko tuddee quoi que boo demee ba yegg ci coppam ndaw la faaw nga gestu ginnaaw loolu la mais du benn risque mais du ay xaalis mu ci dugal wala déet non non làmb dafa nekk suñu nattu ñun suñu nattu la nekk ba tax na faaw ñuy bëree te comme defe naa wax naa ne ko suma suma suma début kàddu damaa wax chaque fois su ma yàlla dimbalee bu ma jël roi des arènes dama bëgg wàccee ci wooy du ma ne xale sax parce que maa ngi ñoom ay master dama leen di jiitu làmb bu dee benn at ci xale yi pour ubbi làmb ci parce que dafa doy rek Modou Balla Gaye Bombardier Lac de Guiers Eumeu Sène fois loolu moo waral lii mais du dara bu dee fu ko teg nag ko teg fu ci liggéey rek ah, liggéey sabablu ñaan yàlla may ñu ndam rek ah mais du feneen fu ñu ko teg la wax daal. fenn fu mu koy teg bu dul lu ma liggéey ginnaaw yàlla li ma liggéey foofu laa ko teg te muy liggéey muy entraînement yi yooyu waaw capital ah yow yaa ko bëgg def capital xanaa ah ah non làmb comme li ñuy wax rek wax dëgg yàlla fi ñu jaar ci làmb defe naa bis moytul diis trop suñu kaw puisque yàgguñu lool lool loolu ci làmb waaye am nañ fi taxusaan bu nekk suñu taxusaan bu nekk événement la moo tax pour man làmb bi làmb comme làmb yëpp la rek mais ay làmb capital ak ay yooyu noonu daal gëw am na ñu bëri parcelle am ndam seen kaw yàlla moom moo dogal loolu waaye ma ne ñaata ñaata yoon laa tere waa Pikine reer tamit <laughs> làmb la loolu dara mer ngeen taxumaa bëree ay jër revanche sax maa bëree dafa nekk ci suma yoon ma war a bëre moom jël ko waaye incha allah loolu mu defoon ba ba ba ba ba waa Parcelles reeruñu incha allah bëgg naa ko delloo ba jour ba waa Pikine nit ci waa Pikine reer parce que Pikine am naa fa ay ay supporters yu bari bari waaw waaw gis moom laa wax moo tax da ne ama ah, dugg na waa Parcelles xaw ma tere leen reer ñaata yoon ma leen man ñaata yoon laa tere reer ñenn ci waa Pikine parce que su bëree Pikine ba pare da ngay foog ne Modou Lo fi la dëkk am nañ supporter fépp vraiment di ñaan daal incha suñu bis moom yàlla ci ñeent waa Pikine bu ñu reer incha allah <laughs> ñenn ci ñoom bu ñu tëjee barrière yi incha allah mag ama fay nekk su soobee yàlla ko ay yor sarax keeg yor sarax waxin la rek wax làmb la rek pour man du dara. Dakar rek yaa ma gën a xam. man xaw ma ci kaw lañ jugee.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

information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal a siiw comme ñëpp. loo wax ci Dakar instant. Dakar boo yeewoo. moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. Instagram. Twitter. Dakar instant. Dakar à tout instant.